إني أخاذب النصارى ترى في أرضهم لمالك مصرى Ahmad Seexul Xadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi comme niñ ko ànde woon suba ba léegi rek euh, ne ci biir salle bi ci bisu de bi nga xam ne moom la ñuy taxawal fi Touba Italie ren nekk fukki yoon ak ñett ñu koy taxawal ñoo ngi toog na yàlla ak suñu ay kilifa di suñu ay sëriñ di suñu ay lépp sëñ Abdoulaye Mbacke moom sëriñ Modou Fadi Xari moom sëñ Sama Mbacke wax dëgg yàlla kon kooku moom bu ñu ko tudd xasida yi ne kon tudd nañ borom comme sëñ Abdou Lahad gannaaw bu la ziare baax Mbacke Balla di leen masaw coono yu baax a baax waaye coono mbégte rek la coono bànneex wax dëgg yàlla ndax euh, bu ñu wax xasida yi moom ba gis satub sëriñ Massamba moom wax dëgg yàlla kon day mel na kon gis nañ borom kon mu mel ne kon at yëpp wax dëgg yàlla def ne ñu koy bokk di ko teewee ren nekk fukkee yoon ak ñett ñu koy taxawee fii Touba Italie ci Milano kon euh, sëñ Abdou Lahad na kon yow yan gis-gis nga am rek ci bis yi xasida yi nga xam ne ñoo ngi koy taxaw ci Europe Italie sëñ Abdou yan yëg nga ci am ci taxawaay taxawaay yi nga xam ne ñoo ngi koy taxawal bisu xasida bi fii ci Touba nekk treizième édition bi ci Milano. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm di am mbégte ci laaj bi nga xam ne moom ngeen ñëw tey ngir di ko laaj mm, mm, ñu ngi sant sëñ Touba bu baax ñu am benn complexe wax alhamdulilahi rabbil alamin sëñ Touba jërëjëf sëñ tubaa jërëjëf sëñ tubaa jërëjëf mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm dem mbégte nag ci lii mu doon loo xam ne naka jekk moog yoon wi ñoo ànd te bokk na ci yi nga xam ne sëriñ Tuubaa daana ko bégee ndax man nañoo wax benn transe boo xam ne dañuy wane ne Cheikh Ahmadul Xadim bégee woon na jàng benn bis boo xam ne daw euh, woon ay ay ñu jóge ci kër Cheikh Massamba ñëw biir kër sëñ Touba di jàng ay xasaayit sëñ Touba dégg jàng yi toog ba mu yàgg mu yanu ab kël boo xam ne xéewal la ca def wax nañu ne baraaya la bu ànd soow tam saf suukar ba mu ñëwee ba tolloo sàkket wa def ne ana ko toll fii sëñ Masamba ne ko nu na de Mbàkke mu ne ko nangul mu daal de koy jël këll boobee ne ko joxal jàngkat yi toog na lu mel ne diggante boo xam ne war naa mën a dellu ci néeg ba ab diggante bu gàtt mu ñëwaat indiwaat geneen xéewal goo xam ne nii ay xéewali mbagaan la goo xam ne dafa def euh, wax nañu ne muuraake mu neex a saf suukar mu ne ku toll fii sëñ Masamba ne ko man de maa toll mu ne ko nangul mu jël ko baraaya ba mu raake man daal di ko rek jàngkat yee ko moom si tuuti mu dellu siwaat ñëw <coughs> wax sax Masamba ne ko fëgg bunt bi ne ko Masamba tekkil tekkil sëñ Tuubaa buy wax tijjil du wax tijjil day wax tekkil mu tekki mu daal dina ko ma sàmm mu ne ko mbàkk mu ne ko sama sama yére yooyu nañ ma ko yët yére yi nag boo ko déggee tablo la yaatu yu bu rafet yu ànd ak mokk raas mu ne nañ ma ko indil ñu indil ko ko mu ne euh, mag ñëpp gi fi wax nañu ne maam Seex Ibra Faal na ko ba wax ne ay waay jataay bii ñii di jàng xasaay di mu bëgg toog di tàggalal boppam ataaya ji day maa ko waroon tàngal di ko wax ci xelam sëñ Touba lu waay wax dégg na moo xamal ma si Ibra Fall na ko Ibra mën na ko Fall Mbàkke mën na ko la wax de dégg naa ko waaye ataaya jii day maa koy tàngal sama loxo di jox ñii di jàng sama xasaayid yi bu yomam xiyaama yàlla fay ma fay leen mu mu daal waaru sëñ Tuubaa daal di ne xanaa xamu ne xasaayit yii lépp lu ma am ci laa ko jële moom nag dafa doon koo xam ne turi yàlla yi yëpp da leen na tërbiyewu <coughs> ba jot seen ijaaba mu jël ko nag defaloon na ko ci biir xasaayit yi xasaayid sëñ Tuubaa yi di ñeenti bayit ñeenti bayit yi doomu bu ne foo toll yàgg ko yittewoo muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bakk yàlla wéetal ko ak ñaan ak sant mooy ñeenti bayit xasaayid yëpp booy seet loolu la làmboo ñaan yàlla ci turu yàlla yi nag moom da ko jël tarbiyoo ko baa am ijaaba defal na ko ci xasaayid yi te kenn ku ci nañ nit nit gannaaw sa wasila wasila woo am sëñ Tuubaa la yaakaar boo boo jàqee dangay ngay wuti sa wasila wala nga wéet ak xasaayid yi sëñ Tuubaa fajal la kon nag jàng xasaayid lu ñu moo la ci ak murit moo ko ci taalibe moo tax nag ñuy sant di gërëm taalibe yi sëñ Tuubaa yi nga xam ne man ànd naa ñoom tey man dama ànd ak ñoom ñëw waaye bi ma ñëwee yëg naa ne sëñ bi ci bopp moom feeñ ñoom ci xasida yi ni ñu bëgg sëñ Tuubaa ne lañ bëgg xasaayit nit nag boo ko bëggee gëm ko dangay ngay bëgg jëfam te xasaayit mooy jëfi sëñ Tuubaa kon nag nañ koy jàng di ci safarawu àddina ak alaaxira ndax xam nga ne sikkar moom day ànd ak tuyaaba waaye xam nga ne sikkar ba yàlla wuyu la nga nga dawal ñaan yàlla day nangu bi julli ci yonte bi sallallahu alayhi nga xam ne moom wax na ne juróom-benn weer yi di julli ci bi la koy boo dib liggéeyam juróom-benn weer yi mooy tagg yonte bi sallallahu alayhi loolu nag mu doon njariñ loo xam ne ku bëggal taalibe yi njariñul àddina ak àllaaxira dëgg leen xéer ci jàng xasaay yi xasaayit nag sëñ Tuubaa wax na ci Seex Masamba benn xesa nettali naa ko États-Unis ñu di ko yéem waaye sëñ Tuubaa moo mel noonu ndax sëñ Tuubaa wax na ne xasaayit yi ñetti xeeti xasaayit la nee na am na xasaayit goo xam ne dafa tudd baxriya ak xasida goo xam ne dafa tudd baadiya ak xasida goo xam ne dafa dugg xabliya waaw mu wax nag ne xasaay dii day eh, dafa ñëwee benn boo ci gis dafa ñëwee ca xaala ñëwee boo ñëw rek lu ma ci ne am na lu mu fekk sëñ Tuubaa ko def mu ne nag mën nañu faj da leen bëgg um, ñu xàmmee ko te di ko digale taalibe yi noonu xasida yi dafa xabliya mooy xasida goo xam ne nee na booba maa ngi jëm ci yàlla di liggéey tàggaguma waaye lu ci waay wut ci xamle ya mën naa jafe mën naa mel ne lu lay sëlbu waaye soo mu ñu taajo dana fayu <coughs> daal di koy xamal nag ne ko xamle ya nañ koy xàmmee na ngeen ko leeral taalibe yi ndax gépp xasaayit goo xam ne da nga koo ubbi mu commencé aouzu billahi min asheytaani rajim wa inni u'iiduhaa bika wa durriyatahaa min asheytaani rajim rabbi aouzu bika min masaati shayaatiin wa aouzu rabbi an yahduruun xasida googu ne sëñ Tuubaa nee na foo ko ubbee rek xamal na xam li yàlla ndax bi may liggéey ba ma demagul ci géej gi seytaane dafa ma dogale di ba rek mën doole lool bëgg maa yàqal waaye sun borom dogal ma nag dimbalee ma ma maa ko daan ndax nee nag am na doole waaye dee leen ko muslu ndax euh, bi may bëreeg moom la ma yàlla xamal dooleem waaye dimbali na ba maa ko daan waaye koo mu dimbal lu toll ne ci man lu man lu toll ne li ma am ba bëri yow dana la daan waaw te ku mu bëree ku daan nga am ci sa bopp lu la naqari ku daan am ci yow li mu bëgg ku mu am ci yow li mu bëgg nga am ci sa bopp lu la naqari kon dee leen ko muslu mu ne xasida googu nag xasida la goo xam ne boobu loo ko wutee da yàlla dana la teg ay nattu yàlla dana la teg ay tuuma yàlla dana la teg eh, ab coona waaye soo muñee rek sa aajo dana faju te bu fajoo du du du am aajo bu fajuwul muy muy xabliya mu teg ca na xasida koo xam ne mooy baxariya ne ko masam mu ne ko mag mu ne ko baxariya xam nga nooy waxe taalibe bi nuñ koy xamee mu ne ko déet mbakke mu ne ko xamal leen ne gépp xasaayit goo xam ne ubbi nañ ko mu tàmbalee bisimilah rahmaani rahiim mi teg wa salallaahu julli ci yonent bi rek xamal ne ba ma nekk ci géej gi laa ko liggéey nekk na nag loo xam ne nekk na nag xasaayit goo xam ne boo noppee yàlla daan la nattoo nga ñàkk ak tuubaraanke waaye soo ko muñee rek Sadio day daal di faju mu ne ko nag euh, ma Mbakke xamlee moom yi mbaxaree moom yi moom kat moom mat naa xàmmee mu ne ko digal leen nag xasida ko am wasalallaahu ala sayyidina muhammadin door a teg way yi rek ku mën doon géej gi géej la kon koy fajaajo na nga na nga jiital ak muñ daal di ko ciy tegal nag xasida gi nga xam ne moom la préféré pour doomu aadama yi di ko jaam nee na booba am na ngërëmul yàlla <coughs> am na ngërëmul yonente bi sallallahu alayhi ba nga xam ne bëgg nañ ci moom ba mu ñaan yàlla def googu nag bu bëggee sa aajo gaaw a faju nga gën a xéer ci tur yàlla yàlla da gën laa dolli ba loo yéem da nga koy man dolli nit ñi dinañ ne mënu koo waaye da ngay am nag ci la dugg nu ko màkki koo xasaay de xanaa moom moom la fee moom la doggee di far féetewoo mu ko yëpp baax yëpp lañ war di féetewoo ndax kenn ku ci ne ku muñ rek da nga falu waaye gi nga xam ne mooy baxam band ya daal nga xam ne gannaaw bu mu ñibbisee ci géej gi gannaaw bu mu amee ngërëmul yàlla la mu gën a gaaw ci aajo mu ne ko mbàkke nuñ koy xàmmee mu ne ko booy xasida gépp xasida goo xam ne ubbi ngeen ko fekk mun na bisimilah rahmaani rahim rek amul amul amul amul amul amul benn benn benn sallallahu ala sayyidina amul awsubillahi amul tarjumaan bu ngeen ko ubbee rek bisimilah rahmaani rahim dal ci way yi kooku xasida moom gën a gaaw ci aajo yi kon nag mooy looy wut lu ne président de la république bari na lu lañ bañ ku falagut bari na lu ko yomb gannaaw buñ ko falee loo xam ne mës na jaasoon taabu ko kon gannaaw gii itam moo gën a gaaw ji suñu yitte te suñu yitte yaakaaruñ ko dul sëñ tubaa te sëñ tubaa moo ñaan ñaanal nu def ci turi yàlla yi tërbiyewu leen ba jot seen i jaaba dugal ko ci kon ku yéene nit àddina ak àllaaxira dafa xaw ko jàngaloo ko xasaayit te muy jàngi da koy bégee kuy jàng xasaayit man moom ma gënal ku ma bokkal moom ma gënal ñépp faw dama lay bëgg maanaam ci tey jii bi gone yëkkati nañ ci biir kaar bi yoo xam ne bi may jooy teyuma ko waaw xasida mooy lépp yàlla na ci yàlla jariñ naka jekk bi fi sëñ Tuubaa nekkee fu mu toll di santaan nañu jàng tam moritil fu mu mas nekk ci àddina baatam du dellu ginnaaw te murit daawul dellu ginnaaw te murit lu mu man ko loolu lépp sañ tubaa ko ñaanal kon nan fokk xasay di fa xasay di sëñ tubaa ko taalif jagleel nu ko nun dong yi ko yaakaar mu ñaan ci biir sant ci biir bàkk yàlla ci biir nu ci aaru di ci jeñ di ci jotti yàlla na yàlla dëppal xeer ci xasaay di te lépp lu ñu def yàlla ñu ko dëppale ak ndi ngërëmul sëñ Tuba jërë ngeen jëf ñu ngi leen sant di leen gërëm wasalaam jërëjëf sëriñ Abdou Lahad Mbacke moom sëriñ moom Cheikh Moussa Mbacke kàddu yi am na solo daal rafet ñuy ñaan yàlla yàggal lool te wéral la guddal saw fan wax dëgg yàlla nga yàgg ñoo jiite ñu yàgg nekk sa gannaaw ci barke Serigne Touba barke xasida yi ci barke sa maam Seex Sama Mbàkke ineew xaadimu nasaratura fi ardim li maliki murtara bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi nga xam ne ñooy bàyyi xel Touba Monde ak rajo Xassida online Touba Monde ñoo ngi fii ci biir salle bi ci Milan ma Pensafera ci bisu xasida bi nga xam ne moom la ñuy amal fii Touba Italie ren nekk nag treizième édition bi maanaam fukkeelu yoon ak ñett ñu koy taxawee ci ndigalul Serigne Sidi Muxtaar Mbàkke bi fi nekk Serigne Touba ñu ko ñaam yàgg fi loolu tubéer ci barke Seeru Xadim waaj teewaay tamit euh, doomam ji nga xam ne at mu jëm moom la fi yow muy Serigne Cheikh Bara Mbacke Mati mu mel ne sax ak yeneen kilifa yu bëri yoo xam ne ñu ngi fi ndax ñi ngi gis gannaaw ku mel ne Serigne Bassirou Mbacke moom Cheikh Mourtala Mbacke almujaad akbar kon ñoo ngi toog ak wax dëgg yàlla moom it di kenn ci njabootu Serigne bi di borom xam-xam xam moom it teew ci bis bi wax dëgg yàlla sëñ Serigne naa gannaaw bu la nuyoo baax ziar la di la di la tatagal di la wax rek marhaban bikum tey di la ndokkeel bu baax a baax ak dina masawu baax a baax coono yi nga xam ne wax dëgg yàlla suba ba léegi yéen ngi ci muy coono yi mbégte waaye itam di coono yi bànneex xam naa gannaaw bu la nuyoo ziar la xam naa nuyoo nuyoo bi ak laaj bi xam naa la ñuy boole rek ngir njëkkante waxtoo xawee xat muy gannaaw bu la nuyoo laaj bi mooy naka nga gisee bi si xës yi nga xam ne ñoo ngi koy taxawal fii ci Touba Europe fii ci Touba Europe wax dëgg yàlla ay mbokk taal di ko taxawee yan gis-gis nga ci am ak maanaam yan njariñ la lay mën a jural ak it yan soññee tamit nga leen mën a indil ba ñi nga xam ne ñoo ko tax at mu nekk ñu gën cee am beneen pas-pas ak beneen maanaam yëg-yëg ba saa su nekk muy gën di murte sëñ Cheikh naa. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim a rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim uh, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaw cheikh bi ñu ngi ziar bu baax a baax a baax di eh, am mbégte bu baax a baax it di ci cërale guñu ci cërale ndax it eh, lu baax moom képp ku la ci woow rek dangay xam ne yéene na la lu baax kon nag yàlla na yàlla def lépp muy lu baax laaj boobu nag dinañ ci sawar loolu macha allah muy eh, kaddu yi am solo ci yëg-yëg xëy na day doon kaddu yég yëg xëy na ndax lu mel nii fu euh, ñu ko fekkee day mel ne dañuy yëg ne sëñ Tuubaa ngi suñ biir moo tax lu am solo la ndax sëñ bi ba muy bind yu mel nii rek la soxla woon euh, nit ñi di daje di di di jàng alxuraan di jàng xasaayid ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne fu ay daje jàng alxuraan di ko jàng di ko satantal duñ fa jógi mukk li fee te yàlla wàccewu fa yërmande kon yu mel nii rek moo taxoon te ñu bàyyiwaale xel bu baax a baax ndax mbindum Sëriñ Tuubaa dafa am place bu kawe ci diine mbindum Serigne Touba da ci am place bu kawe kawe place la boo xam ne ba ca gaañu baax ñëpp xam nañ ne am na place boo xam ne kenn du ko weddi ndax moom rek la mbindum Serigne Touba rek la ko yàlla jagleel mu nekk karaama ci moom ndax Serigne Touba yaa ngi koy dégg mu koy wax ci naan karaamati xattu yad yi fii xidmatil mu ay yad yi wa kaana li bil afyadi allahu mulil karami kon day mel ne bu ñuy seet karaama yi Serigne Touba dëgg-dëgg duñ ko seeti feneen waaye dañ naan nañ sukkandiku ci lim bind yaa ngi dégg mu wax nag karaamati xattu yad yi wali aadamahu rabbi bi xat fan jazab kon samay karaama dëgg-dëgg mooy mbind mi ma bind te ñu bàyyi bàyyi walla xel baax comme karaama mooy mbind mu bind lan la Serigne Touba bind Serigne Touba am mbindam sant yàlla la tudd yàlla ak maggal yàlla loolu dong la ni ki noonu ba tey ak di sant sangam ba di sayyiduna Muhammad sallallahu kon moo tax ba muy wax naan kitaabati dikrun dikrun wa shukrun wa midaad kitaabati dhikrun wa shukrun wa midaad loolu la waxoon allahu allahi arsid allahi arsid xilaami wal midaad allaha ursidu xilaami wal midaad nga xam ne ko day sama mbind la wax ne tudd yàlla la ak sant yàlla ak sant muhammad moo tax mu ne lam lam taktubil aqlaamu bil midaadi fi xayri faydillaahi sil amdaadi sama daag sama xarit bi du ma ci bind dara lu loo xam ne day dolliku kon jom woon naa def lool comme jommoon naa def loolu nag moo tax mbindum Serigne Touba boo ko ci li nga xam ne moom la nit ki gën a mën sukkandiku gën moom la murit bi gën a ci ci la war a sukkandiku ba tax mu mën a avancé kon nag ci lu mel nii ci lu mel nii euh, ci rek lañ ko war a jëfandikoo dajale nit ñi ñu koy jàng di ko jàngat di jàng xasaay di jàng alquran euh, ndax ci waxam jooju ci la demee woon ba jéggi Hassan bun Saabit ak Kaab ibnu Suhayr ibnu Sabi ibnu Abi Salma ndax boo dee xool ci bayda day wax ne wa fi madxihi jaawastu kaaban wa xassaana di ko gis fii mooy li ma wax ne malak malakta nii waxutta lii ixsaana waristu fi madxi nabi xassaana gis nga yàlla may na ma loo xam ne ci ak rafetal la ma ko mayee te ci dond naa xassaan ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la waxaat ne aslamtu wajhi ilayka al yawma li man xadawtu lahu kaaban wa xassaana sant naa ko ci bim ma joxee ma mel ne ñoom ñaar ak def na wa fi madhi jaaw su kaaman wa xasana kon day mel ne mbindum sëñ Tuubaa lépp ni mu ko waxee woon dikr la ak shukur comme sant yàlla la ak tudd yàlla it mënta weesu lu mel ni daje nit ñi sant yàlla bu baax dundal xol yi dundal a a gën gën a at ma ci topp te ñaan yàlla yàlla nangul ñu def ñu dëgg-dëgg taalibe Serigne Touba di sant yàlla bu baax a baax di leen gërëm yéen ñëpp yéen it ndax lu mel ni ku ci boole rek mooy war nga koo sant di ñaan yàlla it yàlla ñu fekk ay at yu de bari bari incha allah jërë ngeen jëf ñoo ngi jégalu bu baax a baax nag macha allah ñu ngi xam naa kàddu gu mujj rek mooy xëy na yan kàddu yu soññee kon ngay mën a dittal mbokk nga xam ne ñu ngi koy taxawee saa su nekk ngir xëy na ñu gën a amaat pas ak yëg-yëg ci liggéey bi gën cee sóobuwaat baax a baax ngir waajal tamit incha allah ci liggéey bi. mooy kàddu kàddu yu sant rek ak di soññee ndax soññee gi mooy la sëñ Abdoul Ahad waxoon na ngeen am fulla na ngeen am fayda na ngeen farlu am fulla mooy lépp lu nekk lépp loo nekk fu ca lu baax yam na nga ca yam am fayda mooy lépp looy ne looy def nanga nga yemale nga nekk ca ak fukki nit ak nekk ca nga nekk ca yow dong mooy kon lépp lu ngeen def ci lu baax lu lu nit ñi néew néew néew ca la barke ba gën a bari na ngeen farlu mooy na ngeen yor jikkoy ëkk te bu leen yor jikkoy xob ëkk kat fu ko ngelaw fekk fa la koy baax waaye xob fu ko ngelaw fekk da koy yóbbaale kon daal loolu moo ci am bu ñu xamee ne lu baax la nañ ci way dégg nga ba nekk ca bu ñu xamee ne lu baax la moo xam nit ñi bari nañ moo xam néew nañ nañ ca nekk te fu ñu nekk it bu ñu def lu jóg ñu loolu moo ci am ndax am murit lépp lu muy def rek mu ko na xam ne loolee mooy dëgg lépp lu mu def nag xam ne musiba xam ne ay problème nga ci juddoo na xam ne loolu jikko ko kon moo tax yu mel nii daray ngistal nekku ci daray tappale nekku ci lépp Sëriñ Tuubaa la lépp dëgg la lépp sant yàlla ak tudd yàlla moo tax di soññ ñëpp di soññ suñu bopp ñu man yàlla def na mosuma cee teew moo tax ren ji ma jaayante bu baax a baax man man cee teew incha allah moo tax sant di ko sant yàlla bu baax a baax it nga xam ne it euh, boo fi yëgee dëgg-dëgg daal da nga ne euh, def nga lu baax waaw moo daal loo moo ci am solo moo daal gën cee góorgóorlu baax a baax nag incha allah ini uxaadimu nasaratura fi ardim li maliki murtara bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokk kom comme nin ko ànde woon suba ba léegi rek ñoo ngi ci biir saal ba léegi nii ne ci kanamu kilifa yi wax dëgg yàlla sëñ Masoro Mbacke moo nekk suñu wet nii ak sëñ Axma Mbacke moom it nekk suñu wet moom sëñ Abdou Akram sëñ Axma gannaaw bu ñu nuyoo baax rek ziar la di la masawu coono yi coono mbégte coono bànneex wax dëgg yàlla di am mbégte loolu di jàkkaaloo ak yéen. xam naa dañuy njëkkante waxtu bi rek ak di leen masawu baaxi na coono yi nga xam ne xëy na tamit léeg-léeg leen koo teg dégg nga tuwal baax a baax a baax ngir jëmi sëriñ bi. xam naa li ñu bëggoon laaj rek mooy comme yàlla def na euh, ren mooy fukk ak ñett ñuy taxawal bis bi ñu defee ko yaa ren fii ci Malpensefiera ci Milan wax dëgg yàlla def nañu tawfeex ñu fekk woon ko daaw fekk waa ko ren ñu ñaan baax a baax ci barke sëriñ bi ñu fekk waa ko déwén incha allah ak ñëpp rek ci barke Seex Xaadim barke xasida yi Euh, xam naa laaj bi mooy rek euh, euh, lu mel nii fii ci Europe ñu taxawal ko fi ba yàlla def ren muy fukki yoon ak ñett ñu koy amal yan yëg-yëg yan yëg-yëg rek nga ci mën a am ci ci jotaay yu mel nii xam dañu fi fanaanee jàng xësiñ ci waa alxuraanu karim ak def ci salaatu ala nabi ba bët set su ko defee buñ ca jógee tamit fas yéene waaj laa déwén lu mel noonu yan yëg nga ci am ak tamit yan soññee nga ci mën a andil mbokk taal bi nga xam ne ñu koy taxawee saa su nekk sëñ Ahmadou bismillaahi rahmaani rahim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant xaadimal Moustapha bu wér a wér xam naa wax ji nag xam naa wax ju gàtt lay doon ndax bett gum ñu bett waaye nag buñ la laajee laaj bi moom ñu tont ci dañ ciy sawar lool te it wax dëgg yàlla liñ ci mën a jànge bokk na ci nangu ko suñ boroom nangul ndax ku na xam na ni bërëb bu mel nii moom euh, kenn miinu fi lu mel nii kon bu fekkente ne ñëw nañ di fi yëkkati xasida Sëriñ Tuubaa nii ñu ko gisee nga xam ne nii la taaroo maanaam euh, dañuy wane nii rek Sëriñ Tuubaa maanaam amul moroom ci bépp anam nag ndax daj na ci yàlla loo xam ne nii dama koy faral di wax Sëriñ tubaa moom buñ ne amul moroom ni nga koy déggee rek mooy euh, dafa daj ci yàlla loo xam ne ñiti yàlla yi bari nañ waaye nag moom ni mu ko wutee maanaam euh, wuute nag niñ koy wuute yeneen nit yàlla yi niñ koy wuute ndax moom dama koy faral di wax wax ji nag xam naa wax ju kii lay doon waaye nag yég euh, yëg la rek mooy suñ Tuubaa ci boppam dafa amul complexe suñ borom ndax lii bokk na ci li nga xam ne ñaan na ko yàlla lii nii nii jataay bi mel nii kon niñ ci mën a jànge rek bokk na ci maanaam gën a doll gën a dëggal suñ pas-pas ci moom gën koo bàyyee suñ bopp tey it gën a jàpp ci moom bu baax a baax te bañ koo yemaleeg dara ndax foo xam ne ni dañ faa toog di jàng xasaayit wax dëgg yàlla niñ ko war a jàppe mooy bërëb boo xam ne mënees na fee defaroo kon nag li ma ci soññ sama bopp di ci soññ sama bokk taalibe yi mooy bu ñuy ñëw ñu ànd ak xol bu set wicc fexe ba làpp laabal suñ xol bu baax a baax ba nga xam ne bu ñu ñëwee daal maanaam danañ fi mën a jariñu bu baax a baax ci àdduna ak ci bokk na ci di ko settantal di ko sellal bu baax a baax ndax nii jataay bi mel nii nga xam ne ku fi ñëw danga am leneen loo xam ne nii moom danga nga ko yëg yëg-yëg boo xam ne wax dëgg yàlla e, ñëpp koy rafetlu ndax loo xam ne international la ñëpp di ko teewe wax dëgg yàlla ndax jataay bi ñi fi toog ñëpp mën naan yoonu murid yëpp teew nañu fi kon daal ñu ngi koy ànd ak yéen di rafetlu itam nii ngeen koy defee di ñaan suñu borom nangul leen ci li nga xam moo tax ngeen di ko def te suñ borom dañu ca ngërëmum baax a baax te nag bayoo ñu rafet njoot ndax ne leen wér ñu suñ biir ndax xasiidaam yii moom maanaam lii moom rek moo ko am bindkat yi bari nañu waaye mooy ki nga xam ne lim bind maanaam nii ñu koy yëkkatee ak nii ñu koy defee moom rek moo ko am kon ñu ngi leen ci gën a soññ baax a baax di ci soññ suñ bopp di bayoo nag eh, ñu rafet ci njort bu baax a baax ñoo ñaan suñu borom nangul ñu ko tañ yàgg koo teew bu baax a baax rek xam yàlla yéen wax dëgg yàlla kii na waaye nag dañoo miinut wax ci mbooloo waaye nag eh, ñi ngi sant bu baax a baax daal li nga xam moom lañ bëgg a wax daal wax dëgg yàlla lot nañ ci wax ko waaye nag ñi ngi rafetlu bu baax a baax ni ngeen koy doxalee daal wax dëgg yàlla di ci ànd yéen baax a baax nag jërë ngeen jëf waay ini uxaadibu nasaratura asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu mbokki julli mbokki taalibe yi comme ni nga xam noonu lañ ko àndoon soo ba léegi rek ci fii ci bisu xasida bi ñuy amal fii Touba Italie ci Milan ci Malpensa ñun toog nag ak Serigne Djily Mbacke moom Serigne Sir Mokhtar Mbacke mi fi nekk Seexul Xadim ñu ko ñaam yàgg bi loolu te wér ci barke Serigne Touba barke xasida yi Serigne ñu ngi lay ziar baax Mbacke Balla di la masawu coono yi mbégte yi ak coono yi yi di am wax dëgg yàlla mbégte bu baax a baax a baax ànd ak yéen guddi gi nga xam ne guddi Serigne Touba la muy guddi xasida yi xam naa sëriñ jiit rek ñu bëggoon la laaj ay laaj yu xaw gàtt rek ndax xam ne ne temps bi gàtt na tey coono yi mel ne xaw naa xaw naa xaw naa bari waaye lépp coono yi tawfeex rek laaj bi mooy sëriñ bi maanaam bisu xasida bi mel na ne teew nga ci te su ma juumul xëy na teewoon ngeen ci at ñu weesu kon sëñ jiit yan gis-gis ngeen am bisu xasida yi xam ne ñu ngi koy taxawal ci Europe waaye rawatina fi Tuubaa Itaali te yàlla dogal ren di fukkeelu yoon ak ñett ñu koy amal ci ndigalu sëriñ Sidi Muxtaar Mbàkke mi nekk sëriñ Touba wax dëgg at mu yëpp daa mu fi yabal ak njabootam ci aw turam ak ci kàddoom ak ci ay ndigalam wax dëgg muy loo xam ne euh, day gën a soññaat mbokki dongo yi wax dëgg gën a nammaat seen pas-pas ñu gën a amaat ak euh, paste bu baax a baax ci liggéey bi wax dëgg ñu bëggoon am rek ay kàddu yoon boo ñu ko mënee addu rek mu jëm ci wàllu xasida yi ak yitte jin ko war a jox ak yenn yëg-yëg nga am ci bis yi nga xam ne ngi ko war suñu tuwaa ci Europe bi rawatina ci ci bisu xasida boo xam ne ren mooy fukki ak ñett ñu koy taxawal ci ndigal sëriñ bi aousu billahi min asheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim ginnaaw buñ sant yàlla julli ci nante bu tedd bi ñu ngi gërëm sunu yaakaar Cheikh Amadou Bamba Xaadim Rasul di jiital ci nuyoo bi eh, Cheikh Sidil Mokhtar xalifa général de Mouride di nuyu sëñ seex Baram moom mi nga xam ne moom la sëriñ bi yónni ngir mu taxaw liggéey bi bi nu ñëwee tamit fekk nañ fi lu kawe suñ jot lool ndax taalibe yi moom ñi ngi dund sañ Tuubaa bu baax rawatina ci wet gi nga xam ne jekkoo nañ ko ko muy ci xasida yi e, te xasida di lu foor ci sëñ Tuubaa di liggéey bu rëy rëy bu sëñ tubaa liggéeyal yàlla liggéeyal ci yonent bi liggéeyal ci mbooleem njabootu lislaam gi yëpp bu yàlla dogalee nag ngeen jàpp at mi bis boo xam ne dangeen ngeen dajaloo ngir fesal ak feeñal seen liggéey bi nga xam ne moom geen liggéeyal ci moom geen doon liggéey ci at mi yëpp ngir gën a wane liggéeyub Serigne Touba tamit baax na bu ñu yeggee foofa ñu xamal leen tuuti ci xasida yi njëriñ li mu am ngir positif bi gën a yokk ñi nga xam ne tamit ñi ngi ci woon ñu gën cee xirtalu bu baax a baax ndax xasida day lu day lu day lu foor day loo xam ne dara génn ci Euh, alquran dara génn ci addisu yonente bi sallallahu tamit lépp loo xam ne lu baax la lu jëm ci tagg ak sant yàlla sunu borom tabaraka wa taala euh, kon nag bu yàlla dogalee ngeen def bis bu mel nii woo ci jullit ñëpp ñu daje fi di bu kawe njort ndax tey ku fi ñëw da fi fekk mbooloo moo xam ne jégg na dayoo lool kon ñun ni ñu ko fekkee sax sun euh, kawe na sun njort kon nag ñu ngi leen di ñaan ngeen daje ci ngërëm suñ tubaa xasida waxoon ni dama ko dama ko dëxëñ ci mbootum laa ilaha illallah ci tënk ilaa tawaali fii yaquudu laaha asraara laa ilaha illallah mbootum laa ilaha illallah nag buñ ko doon peese ci ab dayoo mi ngi mel ne nga jël juróom-ñaari asamaan jël juróom-ñaari suuf teg leen ci balance boo leen tegee boo tegee mbootum laa ilaha illallah ci balance mu wat ko noonu la mbootum laa ilaha illallah toll Sëriñ Tuubaa dëxëñ ko ci xasida yi nga xam ne aji jàng ji sax te yittewoo ko nga xam ne sart yi yi sëriñ bi bëgg muy set sell def sa yitt yëpp di xasida yi boo ko boo ko ci defee rek daanaka mën nga ci am saana fin bi laa dara ne am ci ngërëmul àddina am ci ngërëmul alaaxira ndax euh, loolu rek taxam sëriñ bi sëriñ bi ko kon nag coono yooyu ngeen ci daj yëpp ngir bëgg fësal ak bëgg a xemmemloo nit ñi xasida Sëriñ Tuubaa yi xam ne njariñ kesel lu benn loor tamit loolu taxawaay bu kawe kawe la ndax xasida Sëriñ Tuubaa yi moom da koo mooñaale alquran moo ñaale ko addis moo ñaale ko mbooleem lu baax lépp fab ko taxañ ko ci kon ku koy jàng yàlla mën naa defal tawféqi addina defal la tawféqi alaaxira kon bu fekkee amaat ngeen beneen laaj bu ngeen laaj rek ñu kii waaw jërëjëf sëriñ euh, Jibi kàddu yi am na solo dëgg yàlla xam naa ne mel na ne bi yàgg na toogaay yàlla mel na ne tamit ay yitte xaar xam naa kon sa kàddu yu mujj rek xëy na yoo xam ne dañu bokk taal bi rek sëñ Jibi waaw xanaa gën leen a soññewaat rek ngeen gën a góorgóorlu te xam ne yéen a ngi ci yoon wi lii rek ko sëñ bi bëggee muy jàpp benn bis boo xam ne njaboot gi yëpp dañ fiy daje ngir fàttaliku wane seen liggéey ak seen xemmeemteef ci liggéeyu sëriñ bi waaw rek mooy li nga xam ne mooy mooy mooy solo si bis bi kon nag yàlla leen ci yàlla jàppale li ngeen ci bëgg te di ko mébét lépp tamit yàlla na ko ci yàlla sunu borom tabaraka wa taala defal ak sëriñ Tuubaa amiin amiin Mbacke Balla kon mbokk yi ñu ngi sant bu baax kon ñu toogoon ak sëriñ Jili Mbacke moom sëriñ Sidi Muxtaar kon ñu ngi sant ba yoo سيرهم لمالك مرسل إني أخادم النصارى سيرهم لمالك مرسل bisimilah barke woon tuwaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi Euh, comme niñ ko ànde woon ci suba ba léegi rek euh, ci reportage yi nga xam ne ñoo ngi koy si biir salle bi fii ci Touba Milano ci bisu xasida bi nga xam ne moom lañ baaxoo amal ren nag nekk fukki yoon ak ñett ñu koy taxawee ci ndigalul Serigne Cheikh Moutar Mbacke mi nekk Seexul Xaadim ñu ko ñaam yàggul te wér ci teewaayu doomam Serigne Cheikh Bara ak euh, kilifa yëpp yi nga xam ñoom la àndal mu mel ne ko ñoo ngi toog ak mu Moussa Mbacke bu Touba Milano nga xam ne mooy imaamu daara yi Touba Milano ci kër Serigne Touba gi waaye muy suñu kilifa di suñu jëwriñ waaye tamit di jëwriñ ci biir liggéey bi nga xam ne mooy bisu de bi ñuy taxaw fi Touba Italie sëñ saa gannaaw buñ la nuyoo bu baax rek ziar la ndokkee ci at mu bees mi ñuy dugg tamit di la ci mbalaax bu baax di la ci mbalaax di ci ñaan tamit bu baax a baax yàlla yàgg leen fi loolu te wéral leen wax dëgg yàlla ndax suñuy taxawaay rafet na lool wax dëgg yàlla ndax saa yuñ geesoo gis leen muy doon ab soññee ci ñun wax dëgg doon seen i kàddu xëy na néew loolu nu mu jóg waaye jëmm yi ñuy gis rek wax dëgg yàlla day def si ñun lu bëree bëree bari ba wax dëgg yàlla day yokk pas-pas ak pasteef ci ñun ñëpp. kon si Moussa mel ne kon ren ñoo ngi ci fukki yoon ak ñett bi ci bisu xasida bi wax dëgg yàlla yëpp ñu koy teewee mu mel ne euh, lépp loo xam ne mi ngi dox rek kon du ñàkk kon ay. ay coppi ko di ci am moo xam ay yokk-yokk la wala yoo xam ne yu ñuy wàññil yoo xam ne dafay jar a wàññi léeg kon suñu musuwaa ba léegi nga ciy teew ndax euh, bis bi nan nga ko dundee tey jii fukki yoon bi ak ñett bi ak lan nga gis loo xam ne wax dëgg yàlla lu lu la ak it yan kàddu yoo xam tamit da nga ko ci mën a yëkkati ndax xam nañ ne wax a yàlla bu baax yéen a ngi fi te yi mel na ne yaatu na te xaw na takku Cheikh Mamadou Moustapha waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala wa mawlana muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallama taslima alhamdulilahi rabbil alamin rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli Sëriñ Mbàkke ñoo ngi lay fay ab nuyoo di la delloo ak ak ak cant ak gi ñuy def ci atumu tedd mi ñu dugg ci weeru muharram di ñaari fan ci tey di ñaari fan ci weeru muharram weer wi nga xam ne ay xew-xew yu baree bari amoon na ci eh, yàlla dogal te ji tamit dajeeg bis bi nga xam ne ni nga ko waxee bañ ko tàmbalee amal te ji mooy fukkeel bi yoon ak ñett ma mën a wax ne yaakaar naa bañ ko tàmbalee léegi defe naa ne ñaari yoon laa ko wuute muy buñ ko njëkkee def Rimini ak biñ ko defee Padoa yàlla dogal na yi ci des yëpp defe naa ne amu ci benn bu ma wuute ànd na maag yéen dem dem dem Pescara ànd nañ wax dëgg yàlla daal dem na ànd naa yéen dem fu bëree bëri boobaak léegi nag euh, mel na ni ci njëlbeen ga man la ma ca gisoon rek muy ak kii waxoon naa ko mel na ne boobaak léegi it ak soppi ko mi ngi ci am bu baax ndax bu fekkente ne yàlla dafa dogal ngeen fas yéene nuy fas yéene di liggéeyal Sëñ Tuubaa ci xasida yi moom nu mu gën a rafet ak nu mu gën a sell rek moo war a am boobaak léegi nag wax dëgg yàlla man gisuma ci lenn lu may xebat xanaa di gën a sant yàlla rek tey ñaan doxin wi gën a rafet ne gën rafet la ñuy wax waaye rafet bi moom macha allah am na di ñaanal ñi nga xam ne ñoo koy taxawee suñu boroom yokku leen te guddal seeni fan te wéral leen ndax ay tuut tànk lañ mooy ñu mel na yow waaye wax dëgg yàlla yëmale woon ko ci bésu xasida bi donc lépp lu ngeen xam ne gis ngeen ne luñ mën a liggéeyal la Serigne Touba la yéen a nga cee taxaw seen kem kàttan bis bi nag moom doon na loo xam ne ñaan yàlla di ko di ko fekke ay aju bare rek waaye wax dëgg yàlla amu ci lenn noonu luñ ciy xabat xanaa di ci am ànd ak mbégte waxtu nekk ndax man damay wax ne bis bi jàpp naa ne képp ku ma fi gis jàpp naa ne borom fulla nga borom faayida nga te lu baax ñor na la ndax bis boo xam ne boo fa ñëwee loo fa gis lenn luñ fay def lu dul jàng alquran jàng xasiida waxtaan ci sëriñ bi def ala salaatu ala nabi def benn mi nga xam ne yoonu murit moom da cee mënta ñàkk jàpp naa ne loolu moom sant ñi koy ñi ko jiite dong lañ la ak di leen ñaanal te ñaan suñu gën leen yàggal seen taxawaay gën a guddal seeni fan te gën leen a wéral waaye wax dëgg yàlla daal man gisuma ci lenn loo xam ne euh, lu may xebet la. waaw man nag sama sama sama sama sama xalaatu bopp rek laa leen wax gisuma ci daal lu may xebat xanaa di ñaan di koy eh, ngeen yàgg koo def te yàgg koo ànd te lépp rek Sëñ Tuubaa nangul na ko loolu rek la ñuy ñaan jër ngeen jëf. Euh, jërëjëf Cheikh Amadou Moustapha ci kàddu yi am solo yi xam naa kon kàddu gu mujj gi rek bu dee kàddu yi soññee mën nañ koo am rek Mbacke Balla loo xam ne day jëm si si mbokki dong yi nga xam ne ñu ngi ci biir liggéey bi di ci dox saa su nekk wax dëgg yàlla ngir lu gën a ñoŋal bis bi ba mu gën a murte Cheikh Amadou Moustapha ay kàddu yi rek waaw sëñ Mbàkke mm, kàddu yu soññee yi moom daanaka du weesu euh, kenn ku nekk jàpp ne mbir mi yaa koy doxal boo ci amee loo ci mën a doxe nga jàpp ne boo taxawee rek mbir mi yàqu jàpp naa ne loolu rek mooy kàddu yu yi kenn ku nekk daal na ko def na si mbirum bopp jàpp ne man la ma ca war a def wala su ma waree fab sama tànk dem su ma demul mu yàqu jàpp naa ne loolu rek mooy kàddu yooyu nag yëmale wu ma ko ci yéen dong man man maa ci jiital sama bopp ndax man li ma jàpp mooy mbir mi bu mel ne nam war a mel du ma ci bu alhamdulilahi rabbil alamin laay wax waaye bu melu nam war a mel man du doon lu ma neex te yaakaar naa bari naa ci merom ku mel na sëñ Mahamadan moom nuwaara ak sëñ Fàllu mii wax dëgg yàlla liñ ci ànd yéen ngir yàlla ak jëm suñ Tuubaa képp tax ñu di ci ànd te suñ ko gisu woon ci yéen it nan doon am noonu doxee waaye nag ban ko tàmbalee ba léegi dañoo gisul ngeen joxe nan lu bokkul lu lu lu lu ñor yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba kon nag dañ leen di ñaanal rek suñu borom gën a guddal seen i fan te lafal leen cat te daqal leen saytaane ba fépp fu ngeen bëgg liggéey bi àgg fa ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen àggali ko fa waaye wax dëgg yàlla rafet nañ njort bu baax ndax jàpp nañ ne kenn ku ci nekk li nga ciy def defaloo ko kenn sa bopp ak Serigne Touba rek tax nga di ko def ki ngeen di liggéeyal nag am na pay daana wax ne loxo su tuuti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 nañ xam na xëy na yéene la ak ak ak ak bëgg lu baax lu ci dëng yi nan lu ko jégal xam na lu luñ ci wax lu dëng yi xam nan nu ko jégal xam ne lu rafet rek lañ bëggoon a wax lu jub lañ bëggoon a wax jërëgéen jëf jërëjëf Mbacke Balla kon ki ngeen déggoon sànq muy wax rek mooy suñu soix Mbacke ba Touba Milan nekk fii ci kasuntuwaa gi nekk Milan nekk imam bi wax dëgg muy kilifa ci biir liggéey bi wax dëgg yàlla yi dox doxin wu kawe wax dëgg yàlla wu pësteefu kon ñu ko sant baax di ko gërëm xam naa di doxaat ba ci biir rek ngir daje bi inni uxaadimu nasaara turaa fi